والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بكي جلدي جناو بنيو سنتي يالا سنو برم سبحانه وتعالى جلسي سيدنا محمد salawaatullahi wasalaamu alayhi ñu ngi nuyu ñépp di leen ziyaara yi tamit di sof sunu wax rekk fakk mbokk yi yamale woon te mooy nuyu ñépp ziyaare ñépp tabaarakallahu jiital ci nuyoo bi xalifatul am bay abdullah yal na yàlla yokk ko wér di ziyaare yi tamit al imaamul akbar imaamu ratib ak a aima yi nga xamne ñoo nekk seen gannaaw di yaaran borom dombu tank yi tabarakallah ñuy jital ci tabarakallah jaraf seen yi tek ci sunu soppe bop tabarakallah haji mumma mbeng tabarakallah saltige ak ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tabaarakallaahu dellu sewaat nañ ci seen jataayu tafsirul Quran. tay nak ñu bëgg ñew ak yeen ci saar woo xam ne moom lañuy ñuy tudde suurat kawsar wama ma adraka mal kawsar di saar woo xam ne nii e, saar wu gàtt la daanaka moo gën a gàtt ci alquraanul karim waaye di saar wu bari ay njariñ ni ñuy jàngate saar wi ndëkk mooy dañuy jàngat bu njëkk lan la saar wi ëmb bu ñaareel bi ñu jàngale li nga xam ne ni moom moo di yaxu saar wi ba pare après nag ñu jàngale saar wi lan moo ko taxoona wàcc bu ñu paree ci loolu tamit ñu jàngale ngëneel yi nga xam ne ni moom mooy saar wi ngëneel yi mu am gannaaw bu ñu ko siire yaatal ko lool kemtalaay sunu kàttan bu ñu ci baree nag ñu xool nag jawaanib yi nga xam ne nii saar wi jàngale na ko ci wàllu leeral ak ci wàllu lim beneen tomb bi ñuy jàng ci saar wi moom mooy saar wi lan la wund fi ilmul bayaan bi nax wi wal arut loolu moom mooy suñu mujj tomb bi nga xam ne nii danañ ko jàngale ci saar wi nga xam ne nii mooy suuratul kawsar kon dañuy wax ne saar yi ñuy tudde suratul kawsar bokk na ci saar yi nga xam ne nii nee ñu màkk la wàcce am na sax yeneen wax yu wax ne medinatul munawwar la wàcce saar wi fan nga koy fekk ci alquran bu dee ci toftale téere yàlla bi nga xam ne nii téeméeri saar la ak fukk ak ñeent saar wi moom mooy téeméer ak juróom-ñett moom aaya saar wi ñetti aaya rekk la làmboo ëpp ko kon mooy saar wi gën a gàtt ci alquraanul karim moom suratul kawsar li waral loolu moom mooy saar wi boo xool baat yi nekk ci saar wi yépp nee ne ëppul li xam ne nii moom moo di salaasa kalimaat wala ashratu kalimaat ëppul fukki baat loolu nag ci ni ñu ko tëggee ci arab moom mooy benn bu ci nekk euh, boo koy compter noonu waaye nag waxuñu boo ko tasaaree bu boobaa mën na ëpp loolu araf yi nga xam ne ni nekk na ci saar wi ñu bare jàng ni nekk na ñeent fukki araf ak ñeent wala ñeent fukki araf ak ñaar moom saar wi boo koy xool ci téere bi yaa ngi koy fekk diggante ñaari saar yi ñuy tudde suurat almaaun ak suurat alkaafiruun te ndëg saar wi bu fekkee ne ndëg ni mu wàccee ci alquraan joge ci kaw asamaan di wàcc saar wi moom mooy fukkeelu saar euh, li nga xam ne ni moom mooy fukkeelu saar ak juróom ci bu ñu koy toftalee noonu mu wàccee moom mu ngi wàccee màkk si ñuy wax loolu moom saar yu mu ngi wàcc ginnaaw saar yu ñuy tuddee suurat al aadiyaat ñeneen ñi ne déedéet kañ gannaaw suurat at takaasur sala saar woowu wàccee bokk na ci li nga xam ne nii moom saar wi làmboo na ko mooy saar woo xam ne nii baat yi nga xam ne nii moo nekk ci saar wi am na ñetti baat yoo xam ne doo ko fekk fenn fu dul ci suuratul kawsar mooy ñetti baat yi al alkawsar benn yoon la ñëw ci alquraan te ci saar wi la nekk inxar benn yoon la ñëw ci alquraan te ci saar wii la nekk waaye alabtar benn yoon la ñëw ci alquraan te ci saar wi ci la nekk moom saar wi bu ñu koy bëgg a jàngat tamit da ngay fekk ne moom saar wi euh, mbooleem lettres yi arab yi nga xam ne nii ñaar fukki lettre la ak juróom-ñett moom saar wi ëmbul lettre yépp waaye lettre yi nga xam ne nii moom moo ñëw ci saar wi nee na fukki lettre la ak juróom-ñaar fukki lettre yooyu ak juróom-ñaar yi nga xam ne ni ñëw na ci saar wi nga xam ne waliis bii di ñëw di ñëwaat ñu koy baamuwaat yooyu moom mooy Hamza ñëw na ci nuun ñëw na ci ayn ñëw na ci taa ñëw na ci yaa tamit ñëw na ci kaaf ñëw na laam ñëw na waaw ñëw na saa ñëw na te mooy ñetti tomb nuun ñëw na faa ñëw na saad ñëw na baa ñëw na xaa ñëw na shiin ñëw na haa ñëw na waaye taa ñëw na kon araf yooyu mooy araf yi nga xam ne nii dinga ko fekk ci suurat alkawsar kon nag saar wi nag ci tàmbali mu ngi jàngale li ñooy tuddee yàlla subhaanahu wa taala déeg boo xam ne ni jox na ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te déeg boobu yowmal qiyaama lay doon tabaarakallaahu ngëneel ya nekk ca déeg ba ax la ca am yépp danañ ko leeral incha beneen bi tamit saar wi dana jàngale li nga xam ne mooy digal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam si mu taxawal julli bu paree mu loj def ko muy jaamu yàlla ñetteel bi nga xam ne saar wi dana ko jàngale moom moo di yàlla di tontul sayyiduna muhammad ci ay noonam ya nga xam ne nii ñoom ñoo koy doon moke ba di ko sànni ay baat yàlla di ko tontul naka ñoom ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne seen mbir dog na waaye yow yonent bi sa mbir du dog mukk wa rafaana laka zikrak sallallahu alayhi wa sallam kon ndëkk bu ñu ñëwee nag ci yaxu saar bi ñu jàng ko def ko nañu ko daan def bu ñu ko jàngee ba pare ñu piri ko baat par baat pour ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñi nekk ci daara ju suufe ji a ah, bu ko defee nag ñu ànd waa daara ju kawe ji yaatal bu baax indi sa asbaabu nuzul yéex yépp tabaarakallaahu bu ñu demee bay tëj tamit incha allah firikawaat benn par benn yal na yàlla defal ñu ci tawfiq baad audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولاي العظيم وبلغ الرسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين sunu borom di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko aataynaaka ñun ñoo la jox yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al kawsar li ñuy tuddee kawsar danañ ci ñëw maa huwa al kawsar kon nag yow yonent bi fa salli na nga julli kan ngay jullil li rabbika sa boroom boo jullee ba pare tamit wan xar nga loj te gëléem lañ koy def bu doon xar dañ nekkaan nga rendi kon loolu moom la ko yàlla wax jullil ngir sa borom booy loj wala ngay rendi nga def ko ngir yàlla mu ne ko inna shaani aka naka aji bañ la yow yonent bi ak ku mu man doon parce que al ibara ku man doon yow yonent bi bu la rek huwa moom al abtar mooy ki ay mbiram di dog ci àddina ba ci àllaaxira lan moo taxawaat ci saar wi ñeent ba juróomi wax am na ci bu njëkk bi dañu wax ne inna shaaniaka huwa al abtar mu ngi wàcc ci as ibnu wail assahami dafa taxawoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés di waxtaan ak moom waaye bi muy waxtaan ak moom yéefari màkk yi romb ko bi ñu ko rombee pour mokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj naan kaan waa yow ka nga doon waxal kana la mu ne xanaa ki nga xam ne nii moom moo di zalikal abtar ku njàdde kooku njàdde njàdde la olof di wax njàdde moom laa doon waxal te kooku mooy yonent bi fekk ne yonent bi ci jamono jooju doomam di ñu tuddee abdullah ci la faatu yàlla subhaanahu wa taala di yoon yoon wàccee saar wi pour di ko tontul moom yonent bi inna shaani aka huwal abtar loolu benn la ci ñu wax ne bokk na ci li tax saar bi wàcc bu ñaareel bi Abdullah ibn Abbas nee ne saar wi kañ moom mu ngi wàcc woon pour tontu ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Xuraysh ba nga xam ne nii wax nañ kilifa gi ñuy tudde al Kaab ibnu Ashraf nga xam ne moo doon kilifa yahud waa Medinatul Munawwar mu ñëwoon seet si leen ñu nekkaan est-ce que xam nga ñun ñooy ñan ñun ñooy nàndal képp koo xam ne ñëw na si kaaba gi ñun ñoo yor ujaaj yi tudd seeni baax baax baax yépp di ko wax ndag nekkaan waaw ñun ndax dag ñuy tënkale ki nga xam ne nii moom moo di ku tekkiwul dara kooku te mooy Seydina Muhammad ñu nax ñoom moom ku gën